mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo bu ngeen gisee toogaay bi nga xam ne jàmmaarloo commencé na su ma nee jàmmaarloo na xel yi dem ci làmb su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter yi su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër mi waaye tey nag jàmmaarloo bi dafa xaw a spécial tuuti su ma nee dafa xaw a spécial daan nañ ci invité ay fans mbër daan nañ fi invité ay mbër waaye tey nag ki fi invité kenn ki promoteur la kenn ki mbër la mais fi làmb toll dañoo gis ne làmb tijjeegul combat yaa ngi taxaw mbër yaa ngi jot avance mais làmb yi tijjeegul tey nag moo tax ñu teewal leen ñu dajal leen fi ki nga xamante ni mooy Idaly Gningue su mu nee Idaly Gningue nag xel yi dem ci Gningue production ndax Idaly bu xoolee promoteur lu boo xamante ni nii day doxal làmb su mu ne day doxal làmb nag mooy day fekk xale yi nga xam te kenn xamu leen wala xale yi nga xam te ay espoir leen mu génnee leen tëggal ay combat gis nañ tout récemment tournoi bi nga xamante ne taxawoon nañ ko dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw fi làmb toll kii ma am sama góos nag mooy Diarra 2 su mu ne doomu Pikine su ma nee de de xale bi nga xamante ni bu jugee waa Pikine jóg bu jugee génnee mbooloo mu nekk pikin mu leen fàttalee tuuti rek bëri na ki nga xamante ni mooy Franc bëri na ki nga xamante nii nii mooy euh, gone bi nekk euh, Tëngéej Maama Yaa waaw léegi nag dinañ dinañ dinaan bàyyi ñu nuyoo ñu doog a dawal Idaali maa ngi lay nuyu. waaw di wax bi di sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ko ñaanal Baye Jili borom léegi léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène ñooñu dañ may ñaanal maa ngi wax ñu ñaan yàgg fi lool di nuyu waa wasaar yëpp di la nuyu mm-hmm. waaw di nuyu di nuyu ñi kii bi yëpp caméraman yeeg yëpp daal mm-hmm. noonu baax na Jara maa ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum maa ngi lay fay Ouzin di nuyu waa Sénégal di nuyu waa euh, àdduna waaw di nuyu mbokki pikin di leen nuyu aussi di sama grand yi daal yi nga xam ne moom moo yar ca pàkk làmb bu ma nekkee xale bu ndaw hmm. waaw di fier si nag mu dugg si làmb mooy ñaan yàlla ëllëg ba bis jot bëgg naa xa bëril moom wax dëgg fa yàlla maa koy siyaar bu baax di siyaare say man di nuyu sama doomu ndey bi ma àndal muy booy Niang ko ñu gën koo xam ci maquette booy Niang maquette man quoi. man hmm. koy siyaar bu baax siyaar suma waa koñ yëpp sama yaay. su may mag di ñaanal suma papa fi mu tëdd yàlla suuf oyof ci kaw di di ñaanal bépp bépp papa bu fa tëdd ak bépp yaay di leen ñaanal yàlla suuf sedd seen kaw. amiin amiin dafa mel ni yaa ngi avance de. waaw maa ngi avance nag. ah kan nga war a sax. mbaytin mbaytin géejawaay waaw jël nga avance de. ah man ci jël avance ci laa dëkk. mais avance boobu depuis kañ la woon. avance boobu daal yaakaar naa. ndax man jël naa ko 4 mois avant te le 12 avril laa waroon bëre te presque 2 semaines moo desoon ci combat bi fi mu toll nii combat bi sooy seet man na ak ok waaw. mais loolu métti na de nga jël avance mu mat at boobaak léegi bëguloo. Mhm. te avance moom jeex na moom yàgg na. man moom su ma su ma la waxee dëgg-dëgg rek sama avance matul amul ci man quinze jours. mu jeex mu jeex waaw mais tamit di wax ni métit bi ñun mbëri yeeg promoteurs yi ñoo ko yëgandoo. Mhm. ndax. ñun dañoo fay xaaj ñu préparer jël suñuy moyen def. Hmm. promoteurs yi aussi ñoom it boo dee xool tamit jël sa xaalis mu tëdd fenn fi nga xam ni xamoo kañ nga siy jot. Hmm. yow mbër mi sax jotoon nañ la jox ba nga dimbali ci am ñoo ci war a dimbali am yoo ci war a def mais moom mu jël alalam nag moom mu jox mbër mi. làmb amagul dara fi mu toll ni xamul ni ba xam dina ci jote di xamul kon ñoom ñoom tamit di leen ñaanal yàlla di wax ni état bi nañu gersu quoi. na gersu promoteur yi gersu mbër yi. Hmm. te gersu promoteur yi mooy nga gersu mbër yi ba tey ndax promoteur yi seen affaire mënul dox te affaire mbër mënul dox. Hmm. affaire mbër mënul dox bàyyi affaire promoteur ndax ñoom ñaar ku nekk ñooy jëriñ sa morom di wax ni état bi moom moo ñu moo ñu yëlif ñu ñëpp te ci ay sartam rek ci la làmb di dox li mu bëgg mbër yaa ngi si li muy tere ñu bàyyi ko kon tamit ñun suñ demee ba tollu fii ci état bu toll nii quoi moom la ci dugal loxoom ndax ba ba feebar dugg see. bañ soxlaa ñëpp dañoo gis mbër kon tamit ñun bu feebar bi ñëwaatee. Mhm. ba ñëpp gis seen bopp ni ñii am na lu ñu etaa taxawee ñun làmb tamit ñun bëgg nañ lool état woon ñu lu mu ñuy taxawee ci corona bi waaw. am na solo ma ñëw ci Idaly Idaly boobaag léegi gis nañ corona bi am na saison bi tëj na daanaka sax tijji na laay wax. tëj na mais bu baax léegi gis na la ngay taxawal ay combat te saison bu joxee gu ñu euh, accord mbëri bëri loolu naka la demee. waaw ñun yàlla te jaamu yàlla da koy wóolu ba pare doyloo ko loolu moo tax ñu def te itam xale yi gis nañu gaal yi ñu dugg di dem mm-hmm. suñu leen joxul lu leen téye rek maam musiba mën na am ndax ñoom ñoom génération lañ te ku ne xam ne xale fugg daf koy jàpp ndax uh, bu gisee lu ay nawleem di def di ay moroom di ko def rek moom jàppe ne loolu daf ko war a def mm-hmm. loolu moo waral ñu génne suñuy moyens ñun itam def tout pour jàpp ci jàppale état bi nga xamee ne maam nga tey ndax ñun promoteurs yi ñun état lañu ni état ci dëkk bi ñun promoteurs yi noonu doon état ndax ay xale ay xale lañ àndal mm-hmm. di liggéey ak ñoom te su ma juumul am na pro ay mbër yu bare bare yoo xam ne ñun ñii man mii nii man maa tax demuñu ci gaal yi ndax bi ma leen woo mm-hmm. ma leen woo suba suba lañ ne ñoom pare nañu woon pour jël seen i yi i nga xam ne ñoo dem nañ ci gaal yi suñu borom dogal ñu ñàkk seen bakkan ñoom gisuñu lu dem def ne comme ñoom mais bi yàlla dogalee ñi nga production yëkkati avance am jox leen la ñu toog suñu tegaat seen i saak kon état bi. li ñu mais leen di woo yëg loolu lan nga yëg ba tax nga yëkkati avance bi jox leen bëgguñu toog wala ñeewantal gi ngi leen ñeewantal. waaw dama dama xam ne làmb dafa metti ndax hmm. mbër day daj coono. donc promoteur bi mi ngi génne xaalis xaalis dafa sax ci xol mais mbër ñett ñetti coono lay hmm. bi gaa mën a daj benn coono lay daj mais mbër day daj ci coono. mooy li ko yaakaar bari na moyen bi ko promoteur bi jox soo ko joxee. dina ci dem defaroo pour boppam. Hmm. dina entraîner pour boppam dina jox ci ay bokkam. te yooyu yëpp dafay sart boo xam ci boppam lay nekk. te loolu bu amul rek. pour mu dugg ci ndaka sulu noonu daf koy yomb mm-hmm. kon ñun bu ñu gisee suñuy rakk di daw jëm foo xam ne maam nga tey fi ñu jëm li ñu yor ñu néew mu bari dañu koy fexee bokk ak ñoom ba kenn ku nekk jariñu ci xam ne ci réew mi lañ dëkk te itam dañoo war a jàppale doomi réew mi loolu message message boobu laay lancé président mu jàpp ci ak ñi nga xamee ñoo nekk ci gouvernement bi yépp ñu xam ne làmb dafa bokk ci réew mi nit feebar na mm-hmm. dégg ñu ne Balla Gaye ak Modou ñu ngi bëre ñu ne Balla Gaye dugg si na rek mu jóg wér rek làmb loolu dafa bokk ci réew mi mm-hmm. kon nañu bàyyi làmb ji ubbil ñu ko xam ne ay xale ci nekk ñi ci nekk yaakaar ci bari ndax làmb li ciy dund dafa bari jaaykat caax bi da ciy dund mm-hmm. defar tusit bi da ciy dund sëfooru kalandoo bi da ciy dund sëfooru njaga njaay bi da dund te ñooñu ñëpp bis boobu la ñuy xaar ndax tey ji làmb bu amee tey ji ku mel ne jara de di bëre ñu ne jël na 10 car xam nga jël na 40 mm-hmm. bolok pour dem ay ay ay supporter am ànd ak ñoom dem tey ñoom amul boobu ñu am ci jara mooy bëre ji gunge ko rek loolu benn affaire la am na ñoo xam dañuy feebar wala ñoom beneen leneen lu ñu war a def mais gis nañ ne Diarra 2 mooy bëre tey jógee Pikine dem arène nationale dox di dem seen yitte yëpp mooy gonge ko dooleel ko te ñoom amuñu ci lenn lu jara noggi jara daane rek ñoom ñuy feete victoire boobu loolu lañ ci am mm-hmm. kon nañu bàyyi làmb ji ubbil ñu ko ñu doxal ànd xale yi ndax bu dul loolu gone yi gaal yi ñuy wax ni gars yi ñi ngi def yeneen pexe yu pour dem de ma yokk la ci am na turist yoo xam te bu ñuy dépassé seen dëkk dañ ne suñ ñëwee bëgg naa seetaani làmb ndax dafa loo xam ne dañ koy gis dañ koy gëm ba tax na bu ñu ñëwee da nga daan gis euh, làmb da daan jot nga gis turbine gis ay tubaab doo nga fay gis ñu daan ñu ñu ñu dajaloo ñëw seetaan si làmb loolu am na solo ja su ma ñëwee ci yow ma ñëw gis euh, fan yi mbër yi ñoo ngi def dajaloo mais yenn mbër ndaw yi gisuñu leen ci te mbër yu mag yi bu ñu koy def mbër yu ndaw yee tax ñu koy def. Mm-hmm. ndax daanaka ñoom ñu ci bari seen seen seen seen làmb wéy na. Mm-hmm. am na lu baax loo xamante ni toogaale nañ ko mais mbër ndaw yi ci bari gisuñu leen fa. Mm-hmm. lu waral loolu. waaw man de damay jégalu ci loolu ndax man presque bu ci groupe bi laa bokk. Mm-hmm. mais des fois tamit mën naa toog ay deux jours du ma connecté wala affaire yu kenn xamul xam nga message yooyu mën nga ko bañ a yëg quoi. dëgg maa ngi jégalu ci loolu. nga xam ne waroon naa caa teew te teewuma ci. si mm-hmm. jégalu bu baax di wax ni loolu ñuy def am na solo quoi ndax ñun ñëpp ci làmb lañ yaakaar boo dee xool ñun liñ mën a wala mën a liggéey lépp quoi mbër quoi maanaam lépp dafa taxaw fi mu toll nii. ñun suñu lépp activité yëpp en dem entraînement ñëw tëdd nelaw xam nga kuy def loolu di daj benn coono bi xëy war a yeewu tourné gis sa yaay mu leer na la da war a joxe. Mm-hmm. facture ndox ñëw facture courant nga war a dundal tamit xam nga benn instant nañu état bi jàppale quoi ndax xam naa ni loolu mooy mooy suñu arrangement mooy arrangement wu état. aussi mm-hmm. na jàppale gars yi ñu jéem a xool lu ñu bëree moom mu teg ci loxo sponsor yi jàpp si sponsor bu bëgg tur da nga ñëw si làmb ba pare pare nga daw quoi loolu gars yi war nañ see jóg xoolaat bu baax ñun boo dee xool mbëri yeeg promoteur yëpp ku nekk am nga ci piste ku nekk yaa ngi xëy di jox di leen jox ñoom. kon mbëri tamit suñu amee combat di ñuy jënd si ay crédit bul xam seen i fan si loolu kon tamit nañ ñëw jàpp ci affaire yi quoi ndax maa ngi koy chargé loolu pour mu jàpp ci sponsor ñu ñëw jàpp si làmb ji affaire bi avancé. ndax nit ku nekk ku lay jariñ bëgg nga mu lay jariñ aussi. Mhm. ñun ñu ngi jariñ réseaux sociaux yi. pourquoi kon ci mooy doole ba nga taxaw après nga woon ñu ginnaaw loolu tamit ñun mbëri luñ jar a xeex la quoi. du yoon du yoon du yoon Idaale su ma ñëwee su ma ñëwee su ma ñëwee ci Mataba fan yi gis nañ ko mu génnee 27 millions jox promoteurs yi ci ban base la leen ko joxee yéen promoteurs yi. waaw may nuyu ku mel ni président Abdou Fall rek mi nga xamee ne moom moo jiite promoteurs yëpp di nuyu promoteurs yi ñu jox ku ne 2 millions di leen ci ñaanal suñu borom itam mu nekk njiglaay ci ñoom. Mhm. di wax ne ci li ñu wax. ne ci nga bokk non man joxuñu ma man euh, amuma si naa daaw 3 journées. Mm-hmm. maa ngi tegoon le 15 décembre diggante Bawol 2 ak Sall Bambey. Mm-hmm. le 4 janvier diggante Thiély ak Gago. Mm-hmm. le février ñagas caatuwaalu arène nationale. yooyu lañ tegoon ñun. yàlla dogal na amoon na combat yu ñu taxawaloon nag pour avancer waat mais biñ bas mi ñëwee après finalement mbir yi nga xam ne dañ leen a joxoon avance sax dañu mujj ci ndoolu ba léegi ñi ngi maslaa ak ñoom. te amaat nañ yeneen combat yoo xam ne promoteurs yoo xam ne joxaat lamb ji moom état moom na ci jàpp lamb ji ubbi ndax ñun sax même bu dul ñun promoteurs yi sax sans tëgg lamb ñun ñoo namm sañse dem di seetaane lamb mhm. waaw mais mais mais mais. ci ci ko jox. da koo koo jox pour leen. parce que tamit bu fekkee mbas mi dafa ñëw promoteurs yi seen activité yëpp taxaw ñu jël xaalis séddale ko ñi nga xamante ne jotoon nañ jox avance léegi ñi ne dañoo bokk ci làmb di dundal làmb te fi mu toll nii la ñuy def. waaw dañ ne Matar ba ci budget bi mu génnee nga xam ne moom budget mhm. bi mu wat bi ñu ko wateel. loolu lañ joxe promoteur yi nga xam ne dañoo kii woon dañoo régulariser woon seen i combat daaw ñoom lañ ne moo ñoom lañ ko jox ñu jox kenn ku nekk 2 millions jox président Pape Abdou Fall 5 millions loolu yaakaar ne dañ koy rafetlu ndax ci ñun suñu biir lañ bokk muy ñëpp nag bépp promoteur bu mu mën a doon. Mm-hmm. mais nag li nga xamee ne mooy tey jii li ko théâtre kat bi di jooy ak musicien bi ak bongo man bi. Mm-hmm. di jooy pour jàpp. lamb état dafa war a xam ne lamb dafa ci réew te li a dox nag li indi koom ci réew mi lamb bokk na ci. làmb dangay ngay fu ne ngay dem tey ji exemple nga ne noonu yi daal ñi nga moo organisé tey xoolal ñaa da gis ku jóge Touba ñi jóge fu nekk jël seeni kaar ñëw ñi jóge Thiès. Mhm. ñëw seetaan làmb làmb jeex nga dem ci jàmm kon bu ay xale nekkee ci biir affaire boo xam ne kenn ku ci nekk doole ji nga yor am na foo xam ne xaju fa kon ñoom bu ñu ñëwee nekk ci benn affaire boo xam ne maanaam mooy doole seen doole lañ yaakaar xam nga mbër li tax mbër di noobul mooy demul ne may leen ma dafay entraîner ti ci dooleem la la teraangam nekk mhm. kon dañu war a ubbil suñu làmb ji ñu doxal ñoom ñoom ba fi ñu jëmale làmb ñu jëmale ko fa beneen bi ci topp nag mooy affaire yi nga xamee ne moom la ñu wax ne dañ ko def euh, pour dimbali promoteurs yi ñu xool solution bañ la ñuy tëggee pour làmb ubbi loolu buñ ci gaawee dina baax trop ndax làmb fi ndoolu ñun dañ ko nangu waxuma mbëri sax mais ñun promoteurs yi loolu loolu dinaa ci ñëw loolu dinaa ci ñëw am naa ci question dinaa ci ñëw ndax gis nañ journée yu bëri na mais ku laaj daa la ko sànq nee naa la suñu su ma juumul cinq mois moo ci des te cinq mois yi euh, dafa mel ni est-ce que journée yi dina ci xaaj ak loolu dinaa ci ñëw mais ja ñu gis la boobaak léegi nga lekk avance mm-hmm. toog di entraîner saison bi ni ngeen ko daan ni comme que saison bi tijjeegul. Mm. ni ngeen ni ngeen di préparé combat yi ni ngeen koy préparé wala semaine journée bi da ngeen laal benn yoon bàyyi wala deux séances ngeen def. non man moom man aw ma xaw man xàmmeewu ma combat ak ñàkk combat. Mm-hmm. man damay entraîner lii comme mbër laa dama war a entraîner quoi. mais maanaam man su ma amul combat sax li may entraîner su ma amee combat du ma ko entraîner ndax damay xam ni maanaam la ma waroon sonn sonn naa bi yàgg tey soog a waaw man nag ay deux séances laay entraîner su ma amee combat su ma amul combat. yëpp dañ daan def suñu amee combat entraîné ay trois séances après ñu wooñu wooñu ci ruq lii taxul ngeen am doole tamit entraînement dafa laaj récupération bu doy pour boo demaatee li nga bëgg bëggaat sa yaram munoo nga mën ko cee def léegi depuis boobu ba ba léegi ñu joxe conseil boobu ci loolu lañ nekk bu ñu amee combat bu ñu amul combat yëpp. mais Covid bi dafa mel ni xaw na jàngal yenn mbër yu ndaw yi. Mm-hmm. ndax euh, dama daan dégg ñu naan mbër mu ndaw day am métier. Mm-hmm. est-ce que jotul mbër am métier bu dee lu làmb tamit ñu am ci lu ñu jàpp ndax dëkk bi fi mu toll métti na. ah man de sama bopp man Pàcc Lambaay laa doon liggéey après ma nekk foo presque def naa Pàcc Lambaay dix an mhm. ci Pàcc ba yi daal yi mooy comme li ma la wax moo weer ci Pàcc Lambaay ba. Mhm. xam nga ba ma toogee tamit ba bëgg a wu ci làmb xam nga après ma arrêté boobu maa nekk jeune arrêté mooy loolu xam nga xam nga rek xelu xale bi tuuti xam nga rek boo tollee ci yenn âge mu commencé nekk ci làmb def comme li ma la waxoon ay trois séances kër gi kër gi fii après ba ma demee ba xam ni man mii kenn waruma mën mënu yoral sama bopp. Mhm. ci laa commencé nag entraîné ba am doole. dem ñu jël ma ci benn boîte bu ñu naan say jaraaf. door mhm. waaw ma nekk fa. depuis presque man na ay six ans cinq ans chaque été man su làmb tëjee fa laay nekk. Mhm. benn làmb ibbi du ma yeewoo dem fajar ñëw entraîné tëdd. cinq heures ma dem dix neuf ma dem gond foofu noonu nekk fa benn instant. ñu may jàppale tamit vraiment di ko nuyu au passage jaraaf Ibrahima Ngingue di ko sant bu baax a baax ndax gis naa bu ma nekkee ak moom ba léegi gis naa yokkati sam bopp bu baax baax di ko sant di gërëm waaw. Hmm, loolu am na solo Idale su ma ñëwee su ma ñëwee ci saison bi cinq mois moo ci des ñu gis ne journée yi bari na te état bi jóg na pour jàppale leen ku ci nekk li nga jotoon génnee mu delloo la ko wala mu am loo xam te mu jox la ko ci est-ce que ngi xalaat comme que léegi. Euh, mbër mu am mu am mu am mu am supporter yu bëri ak mu ñàkk supporter yu bëri amatul sens fi mu toll nii. Hmm. est-ce que jotul xalaatuloo dajale lépp daf ko benn journée. waaw loolu loolu du yomb nag ndax euh, tey dañ doon ñun sax ñu ngi doon demandé CNG pour ñu def 15 combats. 15 combats benn benn 15 combats benn jour. ok xale bari nañ te bu làmbatu am na làmb xam ne làmb fu toll fi doon nii pour defar ko mooy ñu mën ko organiser làmb yóbbu làmb 15 combats tey mbër mu ñu doon may 15 minutes ñu may la 10 xañ na ci. Mm-hmm. waaw ba tax na loolu solution boobu gars yi ñu ngi ci doon waxtaan di nuyuwaale Bira Sène mm-hmm. di wax ne wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ku ñax ki ñaan la daal te ubbeeku na mm-hmm. loo xam ne daal ñun kontaan bu baax ndax loolu dafa jafe ci njiit maanaam kaay liggéey njiit bu koy wax rek am na expérience bi kon ñu koy bi mu toog suñu borom defal ko ci jàmm defal ko njabootam yépp xam nga te mu gën a gaaw nu mu mën a gisante ak Matar Ba ñu gisante ak Macky Sall ñu guñ ñu làmb ji loolu moom mooy suñu jabaar ñun waaw loolu daal moom bëgg nañ ko lool lool mais gis nañ saison bu daan tijji euh, xëccoo dat yi dafay xaw a bëri ndax ñi ñi jiitu dañuy jël dimanche yi ñaar wala ñett keneen ñëw jël dimanche bu dimanche jeexee ñëw ci samedi yi mais est bu tijjee te te te ñu ci bëri boolewuñ journée yi est que dina fi xaj temps bi. ndax 5 mois promoteur ku ci nekk bu demee jël say date est ñu mujjee dem dinañ am date. waaw xam nga finalement dañuy mujj comme làmb jee dem promoteur yu bees yi nga xam ne ñëw nañ taxawal itam ñu leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm ji mm-hmm. ndax dañu am luñ foofu ñëw ci làmb Mm-hmm. kon ñi ngi ñaan yàlla bu ñu réccu lu tax ñu dugg si daal mooy promoteur yu bees yi nga xam ne yëpp taxawal nañ combat ren ak doon tëgg daaw ak daaw jéeg yëpp di wax ne képp koo xam ne taxawal nga daal ñi ngi la ñaanal suñu borom mu defal la sutura ba lépp loo doon réccu te maam yow bi nga dugg see mbégte mi nga am ba dugg yàlla nga am mbégte mu ko raw mais nag làmb moom fii mu toll nii nii pour li nga wax noonu problème mu dat non yi moom ni ñu ko daan defee mooy nuyuwaale ku mel ni Fallou Ndiaye ak Assane ñoom ñoo tëgg man ak ñoo askendoo ku ne trois jours na koy tegale ki topp topp ci ki ci topp topp ci ki ci topp topp ci ba yëpp noonu la mas di tëggee suñu ñëwee dañ naan kii moo jiitu moo a bare combat mu dugg mu dugg jël dimanche kii dugg jël kii dugg jël ñu koy topp noonu ndax lamb jee tam fii mu toll nii nii comme ni ñu ko waxee noonu cinq mois yi des day am ci ñoo xam ne tam bu méttee du tee ñu tëgg mardi wala ñu tëgg mercredi ndax ajuma daal yaakaar naa moom lañ ci bàyyoon ci lamb Mm-hmm. te lamb ji nag pour man yaakaar naa ne bu dul lundi journée yëpp war naa mën a am bu dul lundi moom yaakaar naa bis yëpp war nañ cee a tëgg ndax xale yi am ko tëgg Iba Mar man mm-hmm. tëgg naa mar mercredi Iba Mar kon yaakaar naa ne war nañ ko mën a tëgg arène nationale sans départ ci mi nga xamee ne yaay borom événement bi xam li ngay def ba nga xamee ne boo ko def amateur yi ñu wuyu si la di tëgg boo yoo xam ne ku mel ne ñoom jaral yi ñi nga xam ne bu ñuy kooku bu ñëwee dooleel na promoteur am lu mu ko may ñooñu dañuy fexee rek kenn ku ci ne xale yi bari nañ daal xale yi bari nañ te nañ fexee daal te a ubbi làmb ji gars yi ubbi man daal su ma bëgg naa balaa la diis ñu woo promoteur yëpp waame nga kenn ku ci nekk bu ñu la dee jàppale wala ñu ne argument yi dañuy tëgee làmb mm. ñu daal di commencé rek bu dox jëm ca kanam daal ndax loolu mooy intérêt xale yi mooy intérêt promoteur yi mm. mm. jaar yow mais pour mbër yi nga xamante ne amaguñ combat ak fi làmb toll loolu ni wax xam nga fi mu toll nii xaalis moom amul. Mhm. aj kese yu métti yi yaakaar naa fi mu toll nii moom war naa mën a wàcc. Mhm. lan ngeen di xemal xelal pour bu promoteur yi ñëwee di waxtaan ak ñoom ci ci ci combat yi. waaw di leen wax ni tamit euh, comme man ni ma ko yaakaaree rek man maanaam làmb man mënu ma di xëy di ne suba ngoon guddeeg bëccëg. nit mhm. ñëw fas yéene man mbër laa bëgg a doon ku képp ku bëriwul doo mbër. mbër day bëree. parce que am na promoteur ñëw bëgg sa combat war nga mën a xam ni kii dooleem fii la mën a yem. Mhm. xam nga nit bu waxee bu waxul xamoo ko quoi mais nit bu waxee tamit nga xam kii fii dooleem na nga war a mën a dem jël bëre maanaam 500000 yi ngay dagg ci combat bi boo suturaale sa bopp def li ngay def li nga war a def. Mhm. beneen combat 500000 yooyu dañ koy dolliwaat ci feneen ci beneen kase. te boo bëriwul woon loolu ngay doon ñoon di amaana combat boobu rëcc na la bee dina la rëcc ndax kenn gisuloo ba mën laa tëggal ba mën laa fay yenn xaalis mhm. comme ni mooy dundee rek mbëri nañ am na fu mu toll comme ni gi defoon sëñ ñaar boo demee ba toll fa tey yow it nga taxaw ni promoteur bi stop ndax fi mu toll nii li ma yoroon dafa diis. Mhm. xam nga defal nii ma def nii xam nga. mais comme ay xale lépp ci waxtaan la comme ay xale lañ nañ jéem a góorgóorlu di bëree ba ñëpp xam ne incha allahu rabi bu ñu bu ñu ñëpp xamee léegi liñ bëgg a incarné dinañ ko mën a. dinañ ko mën a incarné gis nga. Idaly su ma ñëwee ci ci ci ci ci euh, stade bi gis nañ avant ñoom stade euh, tëgg combat yomboon na combat yi neexoon na événement da daan sotti mais ñu dem ba am bisu bu toll ni arène nationale. location bu cher euh, daanaka combat yëpp yemuñu ñi dañuy tëgg combat bu mag ñi tëgg combat bu xaw ñi tëgg combat bu ndaw mais est-ce que euh, li leen koy joxee euh, baax na ci yéen. non non arène nationale moom dafa ñëw rek suuxal làmb moom arène nationale dañ ko defar maam yi làmb deltu mhm. ndax buñ ko waxee ak buñ ko waxut arène nationale bépp promo man tëgg naa ko yeneen promoteur tëgg na ko képp ku fa tëgg. Mhm. da jot sa xaalis wala nga perte. ok kon loolu seer gum seer wax na tax na loolu ndax làmb ji Ibou Mar rek moo fi amoon ak Demba Diop.

en même temps location bi seer na sécurité bi ndax booy fay sat cinq cent mille di fay sécurité cinq cent mille yow jàppale woo promoteur pour mu dara. mu nekk un million. te am na ci mbër yu ba grand combat bi fayeeku ñu un million yooyu. nga def ci tëgg maa mel kay da tëgg laa léeg ngay dem di sa ngay àggugoo sa bopp métti ndax léeg-léeg boo demee loolu dara <laughs> waaw loolu moom. mbaa da ngay yegg ko ci journée xam nga li gën a jaqari mooy maa nga saa yi nga yëkkati Oh, oh. man tëgg naa làmb tëgg naa làmb mhm. jaay cent cinquante mille bi ba làmb ji jeex ba làmb ji jeex la isaan fees del laa la ma jaay làmb ji cent cinquante mille te ba ma ñëwee dama jaa perte mais dama xam ne li mu bëgg man jom ak fula ak fayda moo ma ko war a may te xam naa li ma ko xañ ma dox ci loolu kon bu dee ay ndaw nekk bu ñu neexoon ñu li ñu yor ñu dagg ko bii dem ci yeneen réew di fa wuti teraanga fii lañ ko toog bokk ak suñuy rak ak suñuy jarbaat ak suñuy mag ak suñuy nijaay kon li ñu war a def mooy dooleel ñu jàppale ñu nekk suñ ginnaaw ndax dañu ànd ak xale yi te réew mi ëllëg Macky Sall xam ne réew mi gone yi mujj ëllëg mooy kiy jàng acteurs yi tey ñoom jarañ yi ñooy doon ñoom Balla Gaye ñoom Lo mm-hmm. la ñu bëgg ñun ëllëg ñooy doon ñoom Luc Nicolaï ñooy doon ñoom mm-hmm. def na a def lépp mënu fee ko Poti Mbaye def ko keneen ak keneen def ko àdduna suñu Abdoulaye Mbacké dafa wax ne àdduna ñetti fan la mm-hmm. démb dem na ñi ngi ci tey te xamuñu suñ suba kon nag doomu aadama boo nekkee ñoom te xamuñu seen suba ñu ay gone di dox seen fugu yow yaa war a doole leen yow mi nga xam ne yaa jiite réew mi di état woo leen ñu nga def waxataan ak ñoom jàjji leen def ak ñoom ci liñ bëgg nga gunge leen ci loolu ndax boo ko defee yaakaar naa kenn réeroo kenn moom yaakaar nañ ne tey ñun élection bu man li ma gis élection bu koy def wala nangam mbëri la ñuy woo mm-hmm. mbëri yi dañuy dem kenn ku ne jàppale ji koy jàppale kon bu amee la ñuy soxla di ko xeex dañu ko war a xeexle ay doomi réew mi lañ dëkkuñu Mali dëkkuñu Burkina mm-hmm. Sénégal gi lañ dëkk nekk ci réew mi di fi def si li nga xam ne moom la war a def kon bu ne xale yi nekkee ci làmb di liggéey kenn ku ci ne dem di wuti doole promoteur bi di wuti xaalis xam nga fu mu koy wute ji ak coono di ko ci fekk kon état dafa war a jàppale promoteur yi làmb yi ñu ubbi ko Sénégal dox jëm ci kanam làmb foofu la toll làmb dafa war a ubbi làmb kii wa dafa war a ubbi waaw te waaw te benn gars yi ñu bañ a bàyyi tapale yeeg di triser ñi ne ci kanam Mm-hmm. gis nga nit li ngay centre bu la ay doomu aadama jiitalee nga nekk ci kanam da war a wax mm-hmm. waxal nit ñi boo waxee noonu yaa ngi xalaat sa diggante kii sama xarit la wala warumaa wax wala dafa nangam nit ñi bu la wóoroo ba jiital la da war a am fit am ngor di waxal nit ñi pour loolu mooy doxal eh, li nga xamee ne maam nga mooy dànk bi ñu def pour booloo jëm ci kanam mm-hmm. mais kenn ku ci nekk tey jii boo xoolee yaa ngi wut affaire xarit Matar Ba mi ñu ne ministre làmb nga làmb tollu fii ci gàllang-gàllang yi mu nekk te nga war a taxaw kenn ku ci nekk sport ba nga nekk yaa nga cey hmm. a expliquer ministre bu ne ca côté ba nga féete bay sa waar di xeexal ña nga nekkal ña nga xam ne yaa leen boot hmm. pour ñu dee doo am lu leen jox loo xam ne kenn ku ci nekk ci affaire yi hmm. kon Matar loolu daf ko war a def nu mu gën a gaaw mais du affaire yi non yow yaa ma neex wala nangam ñun li gëm la wax kenn joxuñu lu ñu def suñu kër dañu war a jàppale làmb ji làmb ji ubbi jox jëm ca kanam mais non ñi ci kanam nekk fi koo dëkk micro o lieu que non doo wax li nga sentir wala wax ak karaay loolu amul nit ñi war a wax li ñu sentir yëg ko ñun kenn yoru suñu kër ñoo yor suñu kër mm-hmm. waaw ñaanu leen kenn ni leen ibbil ngeen liggéey mm-hmm. loolu loolu lañ wax ci làmb mm-hmm. waaye bu ma ñëwee ci ja dama gis mbëru ndaw yi fan yëpp ñoo ngi voyagé lan nga leen wax ñu toog parce que gis nañ gaal yi gaal yi moom géej gi amul bànkaas te ku ci ku ci ku ci rek ñu ne mbër mi dem na ci gaal yi dem ci gaal lan nga leen conseillé waaw di leen wax ni maanaam dugg ak nekk ci dox fii Sénégal ak dem Europe tekki yàlla moo ko yor quoi waaw di wax ni tamit ñoom amaana li ñu dund maanaam nit day dund lu metti ko quoi maanaam imaginer nga juddu si fi nga war a juddoo xam nga dem war a mën a tekki war a dimbali say waajur gisoo ay employés yi nga xam ni état tegal na la ko fii dara. li nga xamee ni war nañoo mën a jël jeunesse bi nga xamee ni sax amoo métier ñu xool ci lenn affaire bi nga xamee ni war nañ ko foo mën a ibbi ngay dem di liggéey di ñu am même bu dee am journée 2000 ba nga dundal sa waa boo dee bi kenn du leen xamal. Mhm. mais léegi dangay dem ba toll foofu noonu yor benn benn ma sàmm ni la kaay ñu dem ci gaal yi léegi yow est boobu doo gis doo da ngay tëx gumbalu da ngay foog euh, décision boobu rek nga jël moo baax. Mhm. fekk ni yàlla mi ngi fépp dem gaal taxut teg. Mhm. dugg ci avion yi teg yàlla moo yor kon gars yi nañ leen toog ba xaar dal xam ne yàlla moo yor lépp bu jotee rek day yomb ni ko jar de gëmee keneen ak keneen keneen nañ ko bokk gëm li ñuy dund ñëpp la metti si ñun hmm. ñëpp kon nañ ko bokk dund bu bu bu ñu dara jaral lenn li Macky Sall mu toog fee ci pale ba war a ñu war a gersu askan wi quoi ñun bu ñu gersoo ak bu ñu gersuwul dañoo war a gersu quoi ndax moom moo ñu yilifee Sénégal yëpp boo leen day xool benn kilifa ñu ñëpp ñu bokk ni Macky Sall yow doxalal quoi kon yow da nga war a jàppale xam ne xale yi sonn nañu jeunesse bi dañoo soxla ci lu ñu nekk jeunesse bi ñun ñu nekk si ci si suñu yittee tamit muy làmb tamit nga dimbaluñu si ngir yàlla li laay yi nga xool noo ko tegee ba ñu bëri war a bëri ñëpp bëri kàttu yàlla Sénégal jëm kanam. waaw ñu fàttali leen ko duñu ay Malien duñu ay Gambien. ay Sénégalais ay Sénégalais lañ quoi. <laughs> Idaly su ma ñëwee ci ci ci journée yi nga jot a taxawal lan moo la poussé nga def tournoi bi. waaw ñun maa ngi nuyu tournoi bi nga xam ne moom la tëgg muy diggante Yankaaw ak Albarka Kayre ak Kaw Gourdin ak Thiat mm-hmm. Daouda Fall. di leen nuyu bu baax di nuyu seen i ñoom ñëpp di wax ne kenn ku ci nekk rafetlu naa li ñu deyaale woon ndax bi mbas mi doog a door. lañu ñu waxtaanoon tënk suñu kàddu bi ñu demee ba am yaakaar ci ne làmb dina taxaw itam la ñu yëkkati kenn ku nekk ñu jox la sa avance nga mm-hmm. mm-hmm. xam nga man nag amateur la nekk naa président des amateurs deux ans. Mm-hmm. waaw xam làmb sax xam naa lépp mais am na lu ma xam ndax saa bu ma maa ngi koy jàng moo moo ko la guma maa ngi ci ginnaaw gars yi rek. mais tournoi boobu daal ñu ngi ci ñaan suñu ci taxawal ba xamee ne maanaam waxtaan ñu ngi production ku mel ni ñoom Omar Saliou xam nga ñoom Saliou Ba ñoom euh, kii Mour Anta sans frontière xam nga fay bu benn barak Kaana Grand Paul Maurice ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk rek jàpp ci fànn bi nga war a jàpp ak bàyyi jiil tarkindaa bi hmm. ne maa koy nuyuwaale bu baax nekk ba Italie ñoom ñooñu ñëpp ñuy waxtaan ci biir stafu ñi ngi production ci lañu waxtaan ma ne leen gars yi daal làmb war naa koo yëkkati yóbbu ko ci beneen level daal ndax tey kenn ku ci nekk yaa na suma juumul Gaston am na lu mu defoon hmm. ku mel ni Fallou Ndiaye ñu am lu mu def comme man ndaw loo xam ne damay jàngate mënaguma dama war a rampe ànd yi nga xam ne relève lañu war a yéeg ndax ñooñu bi ñuy door lépp sama kanam lañ doore loolu moo tax moom ambition tëgg tournoi boobu te ñaan nag suñu borom bi nga xam ne dara tëw ko rek mu may na ci tànk yu ci taxawee ba ci bëgg lépp naagale ko ko. Mhm. ñu gis ne ku daan def tournoi da ngay xool mbër mag wala mbër yi nga xamante ne ñoo xaw nekk deuxième catégorie mais ñu gis la nga jëlee ci xale yi ci suuf mais xale yoo xamante ni ku ci nekk ci wàll wa nga nekk am na loo ci def mhm. nga boole leen noo ko xasee ni euh, tëggee ku ci nekk ñaata combat la ci bëri. non man moom damay ñaan yàlla. maa ngi ñaan mu àggale carrière mooy sëñ Modou Niang maa ngi koy ñaan suñu borom mu àggale. Mm. ndax moo nekkoon koo xam ne tey jii ci marketing xale yëpp tey ba ku ci mag ku ci génn ci moom la jaar man noonu lay tëgg làmb man ma xale yi ñooy ànd. Mm. man xale yi laa bëgg a yëkkati man ñoom ñuy ànd ba suñu borom dogal euh, ñu àggale liñ bëgg a ci làmb ñoom itam ñu àgg fi ñu bëgg man loolu moo may neex ndax loolu laay yëg daal man dama bëgg ànd xam nga oyof ndax tey bu mu amee foo xam ne man fa laay yëkkati yóbbu fa sama bopp rek dama am coono. Mm-hmm. moo tax ndaw ñi laa mën a àndal te ñoom laa bëgg àndul daal suñu borom daal maa ngi koy ñaan lépp lu may jox te bokkuma ko ndaw ñi bu ma jot ci loolu. Hmm. Hmm, moo tax ma am nga trois combats. trois combats waaw moom noonu lay demee. Hmm. waaw tirage bi nag defaguñu ko buñ ba pare kenn ku ci nekk dina xam ki ngay dajeel ñoo xam ne ñii ñoo daje kenn ku nekk jubli ci liggéey mais présenté nañu wane ne lii moom c'est facile kenn ku ne jot nga sa avance ñi ngi wàcc bu yooyu tamit am na yenn combat yooyu am te jot nga ko taxawal taxawal naa diggante eh, Ronaldinho bu Tëngéej ak Koña 2 bu kër Ndakaaru xam nga taxawal mbaytin ak dab daan waaw yooyu yëpp ay combat yoo xam ne daal ñu ngi ciy liggéey hmm. di xaaral ñu ubbi làmb ji ñu ngi production li mu bëgg a def ndax li ma wax rek ne dañoo bëgg yéen andi ñu kenn mësut a xam man ñi fi mësut a bëre grand combat maa leen bëraloo grand combat waaw te man la comme li ma wax rek ni xale yi damay ànd ak ñoom man amour laay am ci ànd ak gone yi hmm. ndax yaakaar naa suma ma amul tey benn xale booy wax rek maam nga danaa su ma yi bëreel yi daal yi mhm. kon loolu sant yàlla ndax defaluguma nit ñi lu tax kenn ku ne sama groupe bi rek dafa fees te mhm. kenn ku ne daf may woo pour ma dugal ci groupe boobu te ay groupe yi làmb yu bare ngi fi mhm. kon loolu su ma ko amee ndimbalal suñu borom la mais du sama njàmbaar du sama mbaax ndax maa itam wax dëgg yàlla du ma wax sama bopp mais bëgguma yëkkati ko bëgguma beew su ma sañoon daal nii ma suñu borom binde daal yàlla ma ne continuer noonu ba suñu borom dogal ma matal fii rek man loolu laa bëgg bëgguma yëkkatiku bëgguma kenn koo xam ne bu ma wooyee du ma la wuyu wala ku ma appel whatsapp du ma wax ak yow mm-hmm. man daal maa ngi ñaan suñu borom bu fekkee ne dañuy détourné sama xel ci leneen loo xam ne lu mm-hmm. la woowee euh, dama nga yombalal ma ma liggéey bi mm-hmm. ñoo ngi ciy kontaan yàlla na ci yàlla saxal sama cameraman baa ngi may signaler temps bi jeex ma soo amoon kàddu yu mujj looy wax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yow bu baax di sant say man mm-hmm. di am fierté bokk ak suma grand yi daal ñu ngi plateau di gërëm waa Pikine yëpp di gërëm waa Sénégal di gërëm suma doomu ndey bi ma àndal muy ñaade ñaa maket man waaw di gërëm suma ñi nga xamee ni su ma amee combat ñu am euh, ñu ñu jàpp jàpp si quoi maanaam yëkkati seeni moyens jëndal ma man damay jënd ay 4 blocs ci promoteur barke mm-hmm. yontu yàlla bi xam nga di wax ni grand Lamine yi di ko sant bu baax di ko gërëm quoi di gërëm monsieur le am Amadou jara waaw di gërëm ku ci mel ni Mbacke kase mhm. waaw xaarim xaarim Diagne xaarim Doucouré di ko gërëm di gërëm Omar Baas di gërëm di leen gërëm bu baax quoi di wax Satou magu Cheikh Mbacke aussi. di ko wax ni day yëkkati xaalisam bu bëri aussi di ma ko jàppale di ko sant bu baax di gërëm di wax ne xel matul quoi ku ma gërëmul tamit nga xam ni di gërëm sama fan sa club bi tamit maa leen sant bu baax. gis naa jéego yi ngeen di def gis naa fi ngeen ma féete aussi maa leen sant bu baax. waaw la Mbaye Tine gannaaw yaa ko topp ba jël ko ba mu jël la kay. waaw non di ko <laughs> nuyu Mbaye saa yi ma koy gis. Ah. bu baax. yaa ngi koy gis bu ah, man ah, man man bala mooy am fierté man. lam maanaam ban bala may. man man ko am. Mbaye Tine état bi ma gis nii mu am man su ma ñëwee rek mbër mi sol sax mooy loolu ndax damay ragal bu indee yenn état yi damay découragé ndax damay xalaat ni bu ma ko daal ñu non jar daanu mbër quoi te man képp ku bëgg bu ñu xoolee xam ni champion moo tax boo indee état ci làmb damay moo gis bu ma waree bëri ko am état damay rakkaaju ci làmb am. kon nag di nga rakkaaju ndax baykat mi ma gis nii. waaw ah, na joob rek yàlla baax na. <laughs> ci kanam loolu mbër incha allah Ila looy tàggatoo. waaw man sant yàlla rek julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal Baye Jiile ak Cheikh Ndigal Sène. Hmm. xam nga ak sëñ Abdou Karim Mbacke ñu yàgg fi loolu te wér xam nga di ñaanal sama ñaari waajur suñu borom bàyyi leen ba naa leen bëgg a àggale ñoom ñu àggale ko di nuyu sama mbokki bawol bawol yëpp daal di wax ne ñi ngi ñaanal nag xam nga wasaare suñu borom dogal mu wasaare yu ci àdduna yàlla ay gars yi fi nekk ñoom borom baax la mm-hmm. man ñoo ñoo bokk bàyyi dañuy xam nga dañuy weccante daal mm-hmm. kon ñi ngi ñaan nag suñu borom def ko ba mu nekk télé bu mag boo xam ne ci àdduna bi yëpp daal na ñëw jàppale seen doom seen rak seen jarbaat waaw di wax ne daal maa ngi ñaanal bàyyi ji li borom léegi-léegi mu yàgg fi te di ko wax ne ñaan yi Mbàkke gis nañ ko bu baax a baax a baax gis ngeen ni lay demee ci jàmmaaloo ni ma leen koy waxee chaque jour ak jàmmaarloo ci mbër yi jàmmaarloo yemul ci supporter waaye lépp loo xamante ni ci làmb la bokk ak lépp loo xamante ni day doxal làmb rek jàmmaarloo da ci dox wasaare làmb da ciy dox li may wax chaque jour ki naan benn ñaata ki naan saam ñaata mu ñooyam wasaare làmb nag dafa ñëw ne saam ñaata di gërëm sama cameraman yi kàggu aadama sañ Bas ak jii Djili ñëpp maa ngi leen nuyu ak euh, Baba mi nga xamante ne tey dañoo seet maa ngi koy nuyu bu baax a baax di leen di daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf